boo ñëwee si li nga xam moo di dialogue dama man dama jàpp ni man dama mës a wax ni bu fekkee ni bu fekkee ni dialogue mooy tax ñu ne ok parrainage bi nañ ko tegee boor wala bokk nañ ko modifier mm. dañuy waxtaan dama ne bu fekkee ni dialogue mooy tax effectivement ñu ne lii dinañu modifier article L vingt neuf article L trente bi article cinquante sept code électoral bi bu dee waxtaan la ok war nañ ko war nañ si mën a mën a waxtaan waaye nag mm-hmm. non mais mouvement boo gis parti boo gis dafa am liberté hmm. ne damay dem wala du ma dem. Khalifa Sall il raison. non non non je ne dis pas je ne dis pas qu'il a raison mais je di que si s'il y va c'est qu'il aura usé de sa liberté c'est tout aussi simple que ça mais j'ai man dama ne gis nga F24 bii. Mhm. par intelligence pour intelligence par rapport à des stratégies politiques yi nga xam ne pouvoir da koy teg éventuellement pour. essayer de casser la dynamique de l'opposition et, et de la société civile bi regroupe ces F24 même bu fekkee ne F24 en son sein ñoom dañuy jël deux trois plénipotentiaires yoo xam ne ñoom la ñuy yebal ne dem leen wax lii ki nga xam ne moo di président ne ko ñun lii la ñu bëgg mm. ndax dina ko mën a def ok au moins sax am na loo xam ne par exemple jàpp ni porte de sortie la boo xam ne mooy gën a mooy a leer parce que entité yëpp mënuñoo toog te itam toog boobu itam ñay dem tamit il faut mesurer leur poids il faut leur électorat bu dee mës ñu dem élection il faut mesurer tant de choses par rapport ak suba ñu ne ah, kii dem na kee dem na alors qu'en réalité maître ak ñu am doole ak ñeneen ñëpp mhm. demuñu